Bib Diop ak doomu Nioro wala Nioro doomu Nioro kii dégg Bib ak doomu Nioro eh di wàcc <laughs> ci bi combat waaw yow bii mooy wuti combat wala mooy bëri combat astafurlah maa ngi tuub xale yu nen moom bii mooy bëri combat <laughs> xale yaa ko wax waxuma ko ñaari lañ mel ni doo kooku noonu si te ñaari ñaari ñëpp dañuy doog si te ñaari mbër ya ngay lewtoo diggante doomu Ndoro ak bib bib moo takk morso bu xonq bi sa bopp eh dib dama si ñaari mbër ya ngi jàppante. ñaari mbër jàppante nañ da koy bët loolu ko bët déedéet dib du xaw may du xaw may da koy plaqué déedéet ba léegi bi bay goxo téere ya ngay wat basi mi du la wax ne téere wat moo tax ñu daan la ah, lu si li ma yaakaar sëñ bi mun naa waxee fu mun naa génnee fu <laughs> Bip doomu Noro Bip moo ñëwoon ginnaaw doomu Noro moo nekk si suuf <laughs> Bip daal di waaw kay saa dikk daal moo jàkkaarloo ñu waaw daal di bëre ngay xalaat Bip lu muy nar wala déedéet doomu Noro am na lu muy